ñu koy waxaat mu njëkk ci daara alquran yi ñuy tuddee daara moderne euh, ki ciy ànd ak yéen seen mbokkum daara sëriñ mor saar di kenn ke kenn itam ku jiite daara kon ngeen bàyyi xel rek ci bind bu njëkk bi ak bindum ñaareel bi li jot a jàll ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax kon tey suñu jubluwaay ci suñu bindub tay, muy bindub ñetteel bi euh, araf yi lañ bëgg ngeen xàmmee ko xool leen ko bu baax lu mel ni too ayin goyin faa qoof kaaf laam aywa fii damaa bëgg ngeen xool bu baax xool leen ko bu baax te déglu ma bu baax aywa too too too gis nga jàngoon nan araf bu am ñaari toom bu ca bind bu njëkk ba ñu koy wax taa taa bii nag kenn du wax taa boo ñëwee naan taa bu boobaa du noonu de eh? too fii day rëy da koy réyal li ñu tudde tafxiim too aywa woo woo fii doo wax saa mais sa làmmiñ cat làmmiñ day génn woo woo hmm? woo ngeen bàyyi ci xel waaw aywa bi ci topp xool leen ko bu baax عين عين عين bu leen wax ayin de ayin a a a a ci xel bu baax bi ci topp ghoyin ghoyin غين غ غ موميت دانكوي ريال غ دو غ دو خ دو غين غين غ غين ياب دا نيو بودون جان سوره الفاتحه تاي لو ملني عليهم عليهم بوبا ع ابي موي نيو مي بودون وا غير المغضوب غير بوبا عرف بي موي نيو غين xoyin aywa ngeen bàyyi ci xel baax niñ koy waxe aywa xool leen bu baax xool leen faa faa faa aywa bi ci topp aywa qoof qoof qoof ah, bu ñuy jàng alquran bii dafa bokk ci xaraf yi ñuy tudde ci bokk ci xarafi xal yi ñu tudde xalqala nga xam ne bu ñu ko maasee sukkoon tey bu nekkee ci digg bi wala boo ciy taxaw aqo ngay wax day dëgër dafa xaw a jegeeg nag kaaf kenn wax koof kaaf kaaf mais kaaf dana ñëw egseegun ci mais dañoo jege fu ñuy génne boo bàyyi wut xel rek da koy jaxase Off, off, off, ayo wa, ah. aha, jisngga, mau cito apu ni, kaf, kaf, kaf, de bulen yo miar, off, off, ayo wa ah, biket es, kaf, kaf, kaf, kamu geng bokunyu. mais dañoo jege boo ci defu ndànk rek danga koy jaxase fi nga waroon a waxee kaaf nga wax oof fi nga war a wax oof nga wax kaaf kon déglu leen ma jaaraat ci yépp ngeen dégg aywa aha too mhm. zoo ayin fa qaf kaf, aha da ngeen ko xol bu baax ta jang ko jangin mu wer aywa fii nag yéen madeg, war wax xol len bu baax te ngeen wax ma deg ngeen jang ma deg waye bala boba deglu len ma jaaral len ci ben yoon fii it comme yu jiitu woon rek ah na too toola zoo la maanaam xaraf yi na nga ko jànge woon na mu tudd noonu la tudd mais buñ koy bind nag bu nekkee ci njël benn baat bi muy commencement baat bi wala ci digg bi wala ci mujj gi niñ koy binde day wuute mais niñ koy jànge benn la ko defee ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax too zoo عين غين طاء ضاء عين غين ay wax leen àndandoo leen yéen ñépp ngeen wax ma dégg te ngeen wax ci kaw nag aywa uh huh اها ما شاء الله اها تبارك الله aha aywa kuy yëkkati loxoom kenn ci yéen kan mooy wax ci góor ñi wala ci jigéen ñi ku yëkkati loxoom rek ku njëkk a yëkkati aywa Baye Mor Gueye Baye Mor Gueye ay waxal ma dégg Aham. Ló. Ló. Aham. Mhm. Uhum. allah macha yéen ñi ci des ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax aywa ñu jàll ci bi ci des aywa ba tey xool leen bu baax niñ ko bind ni mu wuutee waaye na ko jànge woon rek na mu tudd noonu la tudd xool leen bu baax bu ko defee ngeen xool bu baax te déglu ma bu baax ma jaaral leen ci benn yoon bu ko defee ngeen soog a wax aywa faa qoof kaaf faa qoof kaaf faa qoof kaaf aywa wax ma dégg àndandoo leen ngeen wax ci kaw aywa aha aha maasha allah aywa kan mooy wax ma dégg tey nag benn jigéen laa soxla ci dongo yi kuy wax ci soxna yi ah soxna jaaka dumbuyaa aywa waxal ma dégg na leer kaaf aha أيوة أها ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك أيوة وفينك نجين خول بو باخ واو نجين خول بو باخ آه، بو نعم كو يكتي في موم yéenay wax yéenay jàng ma dégg kenn ci góor ñi walla kenn ci jigéen ñi ay aywa soxna Fatima Jaabi Fatima Jaabi aywa waxal ma dégg aha bii nekk ci digg bi xaraf bii nekk ci diggante xoyin ak too nu mu tudd ظا أه. ما شاء الله أيوة أها ما شاء الله بارك الله فيك أيوة كان تقولني كان موي جانج تقولني كي يكتي لهم خليفة أبو بكر سي أيوة وخل مدق aywa yow dama lay laaj euh, araf bi mujj ci ligne deuxième ligne bi maanaam ñaareelu bind bi araf bi mujj nu nu mu tudd waxal ci kaw xooyin gis nga ko bu nekkee ci mujjantalu baat bi ni ñu koy bindee du bokk ak bu nekkee ci commencement baat bi macha allah ah allah xalifa Aboubacar si Taib. macha allah xool leen fii bu baax xool leen gis ngeen aywa kan moo yëkkati loxoom ci ci jigéen ñi kan soxna xadijatu jàlloo aywa waxal ma dégg ca araf bi nekk ci diggante ñaari kaaf yi araf boobu nu mu tudd faa masha allah aywa Aha, mumtaz. Barakallahu fiik ya Khadija. Aywa kan ci gor ñi kuy yëkkati loxam ci gor ñi kan Serigne Mustafa Sar Mustafa Sar ay waxal ma dégg ku sant Sar nak day ay de day mëna jang. Aywa, aywa Aha. Aha. ligne bu ñëk bi muy bind bu ñëk bi araf bu mujj bi nu mu tuddu waxal ci kaw qaf aha bokku bokkut kaf ma sha allah ya mustafa sha allah barakallahu fiik aywa yen ñi ci dess ngeen bayyi ci xel bu baaxa baax ni lañ koy aywa xool leen bu baax nag fii comme yi weesu woon rek ci bind bu njëkk bi bindum ñaareel bi kenn ku nekk na jël bic ak kaye wala xalima ak àlliwa ak daa wala craie ak ardoise ngeen bindal ma ko mbind mu rafet diggante ñaari tomb yi ci ngeen ci ngeen di bind araf bi mbind mu dijj mu rëy te kuy jàng bind mbind mi day rëy waaw bu ko defee ngeen xool too niñ ko bindee Hmm? gis nga ko niñ ko bindee mu am benn lu mel ni alif ci kaw nga bind ko ci diggante ñaari tomb yi nga jël tamit zoo moom it gis nga ko daa am benn tomb ci kaw mais ni ngay bindee too noonu nga koy bindee mais dafa am benn tomb ci kaw moom it nga bind ko ci diggante ñaari tomb yi aywa nga ñëw nga jël arafu ayin ayin gis nga ko ni mu def après def nii nga xool ko bu baax moom it nga bind ko mbind mu rafet ci diggante ñaari tomb yi aywa nga jël xooyin moom it ni ngay bind ayin nga koy bind dafa am benn tomb ci kaw rek loolu moo leen wuutale moom it nga bind ko mbind mu rafet mbindin mu rafet aywa fii it xool leen bu baax faa xoof kaaf moom it nga gis niñ ko bindee ah faa gis nga ko am benn tomb ci kaw moom it nga xool ni mu mel nga bind ko mbindin mu rafet ci diggante ñaari tomb yi nga jël xoof nga gis ni mu def ah am ñaari tomb moom it nga bind ko bindin mu rafet ci diggante ñaari tomb yi nga jël kaaf gis nga ko ah def nii daldi am benn affaire ci digg ci ci ci biir gis nga ko affaire bu ndaw boobu ci biir ah noonu nga koy bindee fexe ko bind mbind mu rafet kon na ci bàyyi xel yéen ñëpp na ko ñëpp bind ngeen indiwaat ma ko ma xool kan moo ci gën a rafet am mbind tabaarakallah nii lañ koy jànge kon ñi ngi leen di sant bu baax di bég ci yéen yàlla yàlla bég ci yéen di leen ñaanal yàlla tawfiq di ko ñaanal suñu bopp kon di leen wax baarakallahu fiikum subhaanaka allahuma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك